sadaqallaahul aziim allaahul aziim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di sant yàlla di julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uh, nuyu mbokk téléspectateur u Thiénaba TV ak internet yi ñuy topp ci YouTube bi uh, nuyoo bu jiite jiitu bi ñu ciy jiital xalif général Baye Serigne assan Seck di ko ñaanal yàlla na yàlla yàggal ko suñu kanam te wéral ko ak lépp lu mu jaboote ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ci moom tamit la ñuy jaar nuyu xalif généraux yi nekk ci réew mi kilifa diine yeeg kilifa aada yi waaye wàccaat nuyu njabootam euh, gi nekk canaba wala ñu nekk ci bitib canaba yi yëpp euh, di nuyu sëriñ Cheikh amaru Seck imam ratib bu canaba ak ñi mu àndal ci liggéey bi euh, nuyu sëriñ Alsaan Ñaana Seck chef de village bu canaba ak chef de village yi wër canaba yëpp waaye nuyoo yooyu yëpp nag dañuy wàññeeku rek teg ko ci loxol bàyyi sëriñ ab Ablaye Ñang Masayer mi nga xamee ni moom mooy xalifa maam Banda Ñang Euh, di nuyu njabootu maam Banda ñang gi nekk biir kër Banda ak gi nekk ci biir réew mi wala ñu nekk bitim réew yëpp euh, ñu leen di nuyu di leen ziara di leen ñaanal yàlla na yàlla defal leen gudd fan ak wér euh, ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam di nuyu sëriñ Ablaye ñang góora mi chef de village bu kër Banda ñang ak njaboot gi bu ngeen gisee ñu nuyoo noonu nag ngeen xam ni kon ñu ngi toog ci ëttub kër Banda ñang ëttub maam Banda ñang mi nga xamee ni macha allah moom ak papaam euh, maam Babacar Niang ak euh, rakkam wala magam maam euh, Ndaraw ñang ñoo àndoon dem fekki maam Cheikh Amadou ñu àndoon liggéey liggéey bu rëy boobu ci diine macha allah njabootu waa kër Bande Niang ci ndigalal Baye Cheikh Canaba Baye Serigne Assane Seck ak kilifa yi cana Canaba yi Serigne Cheikh Amadou sekk ak ñi mu ko bokkal ñooy waajal gàmm gu rëy mooy gàmm gi ñu daan def kër Bande Niang ren ñu jàpp ko samedi le 3 février 2024. war koo def ci péncim kër Banda àndandoo ak njaboot gi moo tax ñu toog ak euh, euh, kilifa yi toog ak Baye Ablaye Niang mi nga xam ne mooy chef de village euh, bu kër Banda waaye tey nag mu toog fi yeneen toogaay ndax xalifa bi Baye Abdoulaye Niang Massaer moom mooy rek kàddoom tey moom moo ko fi toogal macha allah ak njaboot gi kon moom dinañu njëkk a yëkkatil kàddu moom Baye Ablaye Niang chef de village. Euh, ci ndigalal euh, Baye Ablaye Niang Massaer mi nga xamee ni mooy xalifa bi euh, bu ko defee moom moo ñuy fàttali tuuti ci histoire rek ci maam bànd Niang ak kër Banda bu pare message bi mu ciy teg bu ko defee rek muy message yu gàmmu gi bu daaneelee moom Baye Ablaye dinañ déglu Serigne Alioune Niang mi nga xam ne mooy coordonnateur gàmmu gi Euh, bu ko defee moom tamit fi ñu toll ci liggéey bi ak woote bu yaatu boo xam ni dina ko woo kilifa yi ak programme bi nga xamee ni rek euh, mooy programme mu gàmmu kër Banda Niang waaye bu daanelee oustaz Mouhamed Niang moom mi nga xamee ni tey mooy yëkkati kàddu euh, daayira yi ci ndigalam ndigalu kilifa yi moom tamit dinañu wax programme mu gàmm gi waaye dina tamit woote woote bu yaatu ñi mu ko bokkal Euh, nga xam ne mooy njaboot gi ak ñi ko bokkal nga xam ne ay invité lañ euh, bu ko defee rek muy nekk kàddu goo xam ni kàddu gu yaatu la Serigne Codé Niang euh, moom dina yëkkati kàddu woowaa tund wi ndax ku wax Kër Banda di nga xam ni ay dëkk yu yaatu ñoom ñoo ko bokk te dëkkandoo bi rafet na bu ko defee ñoom cër biñ ci am dina ko génne moom Serigne Codé Niang waaye euh, góor baax na jigéen baax na soxna Seynabou wàdd moom moo soxna yi fi toog yëpp macha allah moom mooy yëkkati seen i seen i kàddu euh, bu ko defee rek ñi ñu war a bokkal gàmm ngi ak euh, niñ koy waajee ñoom soxna yi ndax gàmm moom bu ci ay soxna bokkul bari na loo xam ni du jàkk kon ñoom moom soxna Seynabou dina yëkkati kàddu soxna yi rek woote woote boo xam ni woote bu yaatu la su daanee la rek ñu ñaan yëkkati jataay bi nag joxante rendez-vous incha allah samedi euh, le 3 février 2024 fii ci euh, kër Bandé Niang kon kàddu gi mu ngi jëm ci suñu waajur ab Ablaye Niang mu yëkkati kàddu xalifa bi waaye yëkkatiwaale kàddu chef du village. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonante bi noo ngi nuyu bokki jullit yi ci Sénégal yépp nuyoo bi ñoo ngi ko jële ci suñu ndigal Baye Ablaye Niang di borom dëkkub kër Bandé Niang xam ni tey moo fi waroon a teew jëkke ñaan yi joxe ndigal li kuy wax door a wax waaye mu joxe ndigal ni bu ñu teewee naa ko yëkkatil kàddu santal ko bokki jullit yi santal ko dëkk bi santal ko waa réew mi yépp jiital ci sëriñ Thiénaba ak njabootam gi mu ko bokkal gépp teg ci sëriñ Seexu Amadou mi nga xam ne mooy imaamu raatib ba pare it bokk ci kër Banda mu ni woon naa wax loolu ba noppi ah wax leen ni ñu ngi waajal gàmmu gu rëy goo xam ne gi yàlla dogal na léegi mu dem at yu baree bari bañ ko commencé ak léegi ki ñu koy defal doon ku ko jar muy maam ban tafsir Banda Ñang moom moomu nag moo àndoon ak waajuram ak ak rakkam dem fekki maam am seexu amadu Ba ci liggéey bu bi mu woote woon fekk maam ndaraw mi nga xam ne mooy rakk Seexu Amadu moom moo xamante woon ak moom moo ko indil leetar bi ko Seexu Amadu wooye moom it mu daal jël doomam yi mu gën a wóolu ànd ak ñoom wuy ji Seexu Amadu yàlla dogal ñu bokk liggéey ba ba liggéey ba jeex tàkk bañ ñëw mbi jëm wàññi ko waate di ñibbi nag biñ demee ba Samba Sadio fala yàlla dogale liggéey ba foofa la war a jeexe ci liggéey boobu nag foofa la maam Bànda moom fa euh, la maam Babacar Niang dese moom maam Banda des fi ànd koog njaboot gi ak bokki jullit yëpp ci jaamu yàlla ak liggéey ak ñàkk dunde loolu rekk moo doon itteem li ci desin muy man di chef du su Kër Banda maa ngi woo sama nawley chef du village yi ci commune ba yëpp fu chef du village mën a ne te dégg sama kàddu mbaa ku ko dégg na la ko déggal maa ngi leen di woo ci bis bi nga xam ne bisu sunu maam Banda Ñang la ndax bëgg yiw yépp nu bokk ko nun ñëpp maa ngi sant yàlla di julli ci yonante bi di sant bokki dëkk bi bokki tund wi ñi ma séqal islaam bi ak bokk gi yépp loolu rek laa ci doon yëkkati li ci def des ñu jox ko ñeneen asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi min asaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yasfahu qawli asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci sang bi Seydina Rasulullah di ko ñaanal bu baax a baax mook ay saxaabaam ak ñu topp si moom ñëpp. di nuyu Serigne Canaba Serigne Xasan Seck ak njabootuma Amadou Ndak Seck gépp di nuyu imaamu ratib Serigne Seexu Amadou suñu wasila waaye di nuyu chef du village Serigne Alxasan ñaan ak njabootu Canaba gépp di nuyu suñu xalifa suñu maam Serigne Abdoulahi Ñang di xalifaab tafsir Banda radiyallahu anhu ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di nuyu rakkam suñu maam Serigne Niang Maseer di nuyu suñu baay Bàcc Njaay ak kilifaay kër Banda yëpp di nuyu chef du village Serigne Abdoulahi ak ay rakkam suñu papa Serigne Ali Niang ak uh, oustaz Mouhamad Niang ak seen rakk yiñ ko bokkal yëpp uh, suñu baay xalifa baay bàcc Serigne Assane Niang ak uh, kilifaay dëkk bépp daal ñu ngi leen di nuyu bàyyi bàyyiwuñ kenn di ñaanal ñëpp jàmm di ñëwaat ci woote bi nga xam ne mooy woote bi ñu fi daan woote ci waxtu wi muy wootee ba gàmmu suñu maam Tafsir Banda radiyallahu anhu ah, bala ñoo dugg ci woote bi nag ñu laal tuuti rek ci li góor gi doon wax ci maam Banda ndax maam Banda dafa bokk ci magi réew mi nga xam ni ñoo fi jëmbat lislaam bi fii ci Sénégal ak sawu jant ndax mi ngi ganee jamono fële ca jaajorde jànge fa alquran ci wetu waajuram maam Babacar Ñang ba mokkal alquranul karim ginnaaw ba mu jàng xam-xam ci maam war jaw bu kokki ba wattu ci xam-xam lu baree baree bari euh, dem ci saakonaate tafsir fa alxuraan ba ñu koy wooyee tafsir banda radiallahu anhu ah ginnaaw ba nag ci la liggéey bu mag boobu góor gi doon junj léegi amee ah euh, ki nga xamante ni mooy suñu maam Ibra Penda Buyo di doomu Seydina Limaamul Mahdiyu jotal ko woote Seydina Seexu bi mu ko jotalee woote ba it ci la ko gaaral njabootam yàlla dogal Ahmad Ndaraw ak maam Banda ñooy ñi nga xam ne ñoo ànd ak maam Babacar Niang Ah, man daraw des ci xare bi ñu jëkk taal foofu ci wetu kokki ci njokk moom fa la ko yàlla moomee comme ni ko góor gi junje yàlla dogal ñoom ñu dem ba Samba Sadio fa la mam Babacar ña ngi des waaye mam Banda ci biir liggéey boobu li mu doon doon ndaw ndax bokkoon na ci ñu gënoon a féete ndaw ci jamono jooju ndax booba ñaar fukki atam ak juróom euh, ci li ma jëlee ci sa maam góor nee na matul ay ñaar fukk ak ñett ñaar fukk ak ñeent la tollu si ay waaye bokkoon na ci ñi sëy naa seexu gënoon a ràññee ci wàllu njàmbaar ak wàllu xam ba ci bu bal yi masaa jeex sax ñi sëy naa seexu doon dugg duggloo xalwa ñuy def ay ñaan eh, ca la bokkoon ñu jël suuf def ay ñaan bu ñaanee suuf soosu la sëy naa seexu di woon ni leen mi nakki lay di odo jongi ma te bu leen ci suuf si def ci fital yi suuf soosu la ñuy fitale ba amaat ay bal door a la des ca suuf sa continuwaat ci ci bal yi mam banda te booba waajuram a nga fa ay ñu ko mag foofu fa nga fa waaye yàlla mayoon na ko garaat boobu ngir njàmbaaram ak sellam ak nanga ko jaamu yàllam ba yàlla dogal mu uh, jóge foofu ci Samba Sadio ginnaaw bi jeexaat ji jeexee nag yëg ni moom Amari Ndaak Seck sanc na fii ci ba jige si ko tax mu ñëw ba fii ci wetam mu jige ko bi mu ñëwee góor gi bëggoon na ko téye ci wetam waaye njàmbaaram ba tey ak bëgg njabootam ak yaatalam tax mu ñaan ko pour wut dëkku boppam uh, bañ koo sori ci la ñëw gor fii di kër Banda Ñang lu jiitu muy agsi fii nag am na ay jaar-jaar fu mel ni Mbóojeen gor na fa fu mel ni Sangaan gor na fa def fa ay at door a gor fii ci kër Banda ba fii la ko yàlla moome ci 1930 ñu denc ko fii ci kanam jumaa ji di ko ziyaara yàlla na yàlla dolli leeram maam Banda Ñaŋ moomu nag bi mu fi jógee euh, taawam bu baax ba sëñ Masamba moo ko wutu ci xilaafa gi toogaay fi toog bu rafet a rafet a rafet uf njaboot gi uf taalibe yi uf mu xaddam yi yaatal dëkk bi ak diina ji bu baax a baax waaye àndoon kook rakkayam ya sëriñ Alioune Ñaŋ ak sëriñ Maseer Ñaŋ ak góor gi Mañaan Njaay góor gi Mor Njaay ak mag ñu baax ñooñu ko daroon Euh, taawam ba sëriñ euh, rakkam ja sëriñ Aliou Niang wutu ko sëriñ Aliou Niang wuutu ko toog ci xilaafa gi 27 ans comme ne ko sëñ Ibrahima defe woon ca Thiénaba ndax mi ngi fi nekk 65 ba 92 moom it liggéey fi ay liggéey yu rëy a rëy ci la seen doom ja ñëw sëriñ Gora Niang moom it euh, toog ci xilaafa gi ci ab diir bu xaw a gàtt waaye mu liggéey fi liggéey boo xam ni bu yaatu la ci lislaam bi ak mbokk gi lépp lu ma sa xew rek boo ko gisee sa xel dal ndax njàmbaar ga ak ak fidwa bi mu fi jógee rakkam ja nga xam ne ñoo bokk wenn waajur di sama maam seer ña wutu ko moom it ah, toog fi diir bu gàtt waaye ci kanamam la ñu fondation jumaa ji mag ji loolu rek doy na sàkk bi mu fi jógee rakkam sëriñ Aali ña wutu ko moom it ba ci kanamam moom eh, ci la ñu jullee jumaa ji loolu di liggéey bu am solo ah ci la seen rakk ji nekk di maam Abdoulaye Masseer yàlla na yàlla yokk ko wér te yokk ko fee yàggal ah ginnaaw loolu nag ñu ngi woo mbokki jullit yëpp rawatina waa Cenaba ndax damay wax ni kër Banda bu ñu xewlee waa Thiénaba bu ñu delloo xaw ma naar ba xoromam kenn du des ndax maam yi noonu la ko àndee woon euh, ndax Kër Banda ak Thiénaba du benn dëkk ñaari dëkk la mag ñi yàgg nañ koo li maam Mari daana wax ni sama digganteeg Banda de mooy ñett ña àndoon di dem ba yàgg kenn ki taxaw ñu xaar xaar ñëwul ñu dem ñu dem ba yàgg keneen ki jàdd ñu xaar xaar ñëwul mun ko eh ñëwal yow moom mënoo dem ba ma mënumaa dem bala kon nag Thiénaba ak Kër Banda noonu la ñu mel kon ñu ngi woo Serigne Jibril Seck mi nga xam ne mooy xalifaab Serigne Ibrahima Seck ak njabootu sëriñ Ibrahima Seck gépp waaye dugalaale ci biir njabootu mam Momar Talla gépp ndax moom ak ci sëti mam Momar Talla yi di woo sëriñ Mouhamadou Roqe ak njabootu tafsir Madika gépp di woo sëriñ Ibrahima sekk bu Baye Talla Xaar ak njabootu mam Ibra Penda bépp suñu wooyee ñett ñooñu rek woo nañ waa kër ma Amari Ndaak yëpp waaye di woo mu yi ca biir dëkk bu bàyyiwuñ kenn ah, di waa ñangeen waa ciise waa conga waa ndonga yeen waa fayeen maanaam képp famille bu mag ba ne biir Thiénaba daal ñu ngi lay woo ci bis bi di ñaanalaat suñu waajur Baye Ngosaan Fall mi fi jóge bu yàggul te nekkoon fa ambassadeur yal na yàlla dolli ko yërmaande jéggal te xare ko na di ko ñaanal di ñaanal ñu jiitu ñëpp di woo nag waa tund yu bàyyiwuñ kenn xam naa loolu incha allah sëñ Assane dina ci ak ci ah, di woy tamit ki nga xam ni mooy sous-préfet bu Thiénaba moom it wax dëgg dem nañ fa mu am ci ay wax yu am solo ñu ngi ci yaakaar ay taxawaayam monsieur le maire Talla Diagne moom it ñu ngi koy woo di ci yaakaar taxawaayam moom it commencé na sax am lu ay yu am solo yu mu dugal ah ki nga xam ne mooy Babacar Ndiaye moom it am na ci ay taxawaay yu rëy a rëy te jàng gàmmu gi ak seegul ñu ngi ko ci gën a fàttali moom it te di ko dolli ñaan bu baax a baax a baax di woo nga xam ne mooy Abdou Ñing moom it nekk foofu di politicien waaye duñu fàtte Xaadim Gueye moom ñu ngi koy woo di woo ki nga xam ne mooy Serigne Gora njaay ñu ngi koy woo moom it di politicien waaye di woo mboolem politiciens yi nekk euh, biir ba yëpp Xalifa Ibrahima Ndiaye duñ ko fàtte ñu ngi koy woo di woo waa Thiénaba yëpp bàyyiwuñ kenn di ñaan yàlla na yàlla yóbbu ci bis ba lépp lu luñ ci yéene ci mbaax yàlla na yàlla defal lu ci lu ko wees njort di fadli ñëpp li nag ki ñu koy defal jar na ko képp ku ñëw ngir yàlla incha allah loo fi dagaan yàlla dina la ko defal kon nag ndax ñun ñuy woote de yàlla rek moo tax ñuy woote te ñaan ku ne xam na ni euh, farata la du sax sunna farata la ndax suñu borom moo ko santaane kon ñu ngi sàkku teewaayu ñëpp di ñaan yàlla yóbbu na si jàmm di jéggulu ñëpp di wax salaamualeykum wa rahmatullah audu billahi samil alim min charri cheytaani rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi wal mursalin saydul wa ala xaq qadrihi wa miqdaari al azim wa baadu nu xayikum bi taxiyati al islaam wa hiya assalaamu wa rahmatullah ñoo ngi sant borom bi subhaanahu wa taala bu baax moom mi ñu may ñu fekke ko daaw mayaat ñu wér ban fekke ko ren yal nañ ko teewe at yu bari ci baaxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis la boo xamante ni ay njaboot ñoo ko taxawal ngir jëmmi borom bi subhaanahu wa ak di ci fàttaliku ku baax ku tedd ku yiw muy Tafsir Banda Niang anhu nga xamante ni bu ko jot maye woon sax jamono ju nekk war nay am ñaari yoon wala ñett ndax liggéeyam toll na noonu kon yal na yàlla fayal nu ko gàmm gi nag gàmm la goo xamante ni gu yàgg la goo xam ni ren ji ñuy jublu mooy trente-sixième édition di fanweeri at ak juróom benn bi ko mag ñi sancee ñu commencé ko ba tey ji yal nañ ko yàgg fekk fekke e, mbokki daayira bi nag ñoom ñi ngi wooñ yëpp ndax daayira bi ci ndigalu président Serigne aadama Ndiaye présidente soxna Ngone Ñang ñoom ñoo ànd di woo mbooleem koo xamante ni yaa ngi dégg sunu kàddu ci Thiénaba TV ak foo ko mën a nekk ci réew mi wala bitim réew programme bi nag lépp diine la ndax li tax lépp diine la mooy bu nu xëyee dix jàpp onze midi daneen nekk ci njàngum alxuraan mi njàng mi sax kaamil yi commencé na waaye nag dinañ ko mottili ca bis boobee daal di tëj ñaanal Tafsir Banda ak ñi mu àndaloon ñëpp ñaanal itam sidna seex radiallahu anhu waaye nag lépp ñu delloo ko ca cosaan la muy sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu demee ba boori deux heures ñu daal di julli tusbaar suñu jullee ba pare xéewal yi daal di ñëw paaleen yeeg njaañeen yi gis ci seen bopp bu baax a baax a baax su loolu weesoo bu demee ba julli tàkkusaan ba pare ñu am conférence bu mag boo xamante dinañ ko amal ci pencum Tafsir Banda mi ànd ceeg Sidi Mouhamad Lamine di sunu way jur yal na yàlla dimbali ko ba mu def ko nam ko daan defe ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa su loolu weesoo nag ñu julli timis dugg ci jumaa ji julli buñ génnee ci jumaa ji ci teewaayu sëriñ Seexu Amadou nga xamante ni mooy sunu buntu ci tariixa Tijaan di sunu buntu ci kër Seexu Canaba bu teewee nag su boobaa nag ñëpp moom la ñuy diglu xol yëpp moom la ñuy daj xel yëpp moom la daj su ko defee nag mu yulli laat ñu fi loo xamante ni dañ ci mën a jariñuwaat ba fekkee ko ndax darsam yi paase kenn du ko fàtte kooku loolu la ko yàlla defal dañuy wax ni jëmm la joo xamante ni la woykat ba di wax ni soo euh, su ñëwee ci mbooloo ci dëkk dëkk booba fekk ñu nekk ci bekkoor fekk ñu nekk ci jënd seeni pare pare yëpp yëpp ba nga xam ni taw rek la ñuy séentu ñu jekki-jekki taw bu bari wàcc àndul ak dënnu àndul ak ngelaw yàqul dara ba pare taw ba tooy ñit ña na seen xol yay féexe ñu xëy daal di ji di yaakaar mu sax moom bu ñëwee ci barab noona lay mel ca barab boobe ndax la muy def ca xoli jaam ña yal na ko fi yàlla yàggal su loolu paasee ñu delluwaat ci kër yi daal di xéwlu def reer yi ak ya ca aju ak ya cay topp sunu paree nag bu buñ demee ba minuit Paa Abdoulaye Mbuub dina ñëw ànd ak groupam ñu bàkk yàlla bàkk sidna rasulullah sallallahu alayhi wa ñu ànd kook ñoom ci waxtaan woo xamante ni ci yonent bi lay jëm ndax du almawludu xadisun diinun yataxallaluhu l anasil gàmm moom waxtaanu diine la woo xam ne ay woy mooy dog ci biir ñu ànde ko noonu ba julli fajar ñu ñaanalantewaat ba déwén yal nañ ko yàlla fekkeloo te tal ko dëkk la nag boo xamante ni li islaam di bañ la ñuy bañ li cenaba di bañ la ñuy bañ lépp loo xamante ni islaam gërëmu ko yàlla gërëmu ko maam Banda gërëmu ko njabootam gërëmun ko tey dañ ko fi tere deesu fi tux deesu fi naan deesu fi sol col gu bon deesu fi def genn goo xamante ni ak yiwadi la goo xamante ni islaam gërëmu ko te nag wa man yataadda xududallah faqad salama sa yàlla ne bu ma rëddee ku jéggi sama rëdd dem def leneen yaa tooñ sa bopp kon nag maam Banda rëdd na te rëdd mooy rëddu yàlla kon nag ku ko jéggi def leneen bu boobaa nag yaa tooñ sa bopp ñun nag sunu ngërëm dinañ ko jëme ci waa daayira bi ak seeni taxawaay taxawaay yu am solo am ci yitte lool kenn ku nekk jàpp ni bis bi yow boo defee ginnaaw bis bi du baax ñoom ñëpp ñu am ci ay taxawaay kon yal nañ ko gën a man yàlla dolli leen wërsëg dolli leen xéewal leen sutura ñu yàgg ko teewe yàgg koo taxawu ci barke yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ma zalika alallah wasalaamu aleykum wa rahmatullah min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim assalaamu aleykum ayuha alixwatu almuslimina walmuslimihina alkirami aleykum wa rahmatullahi taxala wa barakatuhu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu nuyub islaam di leen nuyu nuyu bu tedd di leen siyaara di leen balu àq te di leen baal àq di leen yëgal bisu Mame Balla Niang bi ci ndigalalu Serigne Abdoulahi Niang Maseer ak doomam ju baax ji di Serigne Abdoulahi Niang nga xam ni moom la dénk kiiraayul kër Balla lépp mu taxawee ko ca na mu gën a rafete ñu ngi woo bokki tund wépp nag di ci jiital na bokki cene ba yi nga xam ne ñooy kër Balla bokki cene ba gaar bokki ngunjaan bokki càngaay bokki kër xole bokki kër yaatma bokki njóobeen bokki kër Ibra Faat bokki kër Malamin bokki Njaane bokki daaray sëñ Mbàkke mu Madina bokki Korosma bokki kër Baara bokki kër Njaga bokki kër Aliou Thiaw bokki kër Aliou Jonn ñu ngi siyaara bokki kër Biraan yi nga xam ne tamit ñoo bokk bis bi yëpp ndax maam Banda moom bu ku xas dégg bisam rek ñëpp ci bokk yam moo tax ñoo tund wi ñoo ko bokk ak mbokk lanu rafetal ci diine ak islaam ak ngor bis bi moom bisu ñëpp la ñu ngi woo tund yëpp communication bi ku ko dégg na ko jotli li sa morom ndax bisu diina la bisu islam la mbokk yëpp a ko bokk xatumaa na bokki dëkkandoo ñoo koy xàccandoo ñoo koy dóorandoo ci ndigalul nag suñu waajur di Serigne Abdoulaye Niang Masseer ak chef de village Serigne Abdoulaye Niang ak kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi yëpp ak xale yi nga xam ne ñoo ngànk daayira bii ñu ngi siyaar ñëpp di tatagal ñëpp ñëpp nag nañ ubbi seen comme nañ ko daa defee ubbi seen yaatal seeni xel yaatal kër yi yaatal néeg yi ñu ngi woo tamit bokki kër Assane ñi ngi ñu ngi woo bokki ngomeen yi ñu ngi woo bokki kër Yaaba Jóob waaye ñu ngi woo tamit bokki kër Lamine Fay ñu ngi woo bokki càlle yi bàyyiwu wunu kenn ku lim doo dan naa doo doo juum da nga dul matal yàlla rek moo mat waaye ne képp koo xam ne nii rek dégg nga communication bi rek waatal ni kër Banda daal mu ngi ci sa xol yaa ngi ci xolu kër Banda loolu daal moom la ñu jëlee woon ci sunu nijaay Abdoulaye Niang mu jaar ci chef di village jaar ci njaboot gi ñu indi ko ci samay kàddu man mii lu ci manqué ci man la waaye lu ci mat ci ñoom la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum sama mbokki dëkk bi mbokki taalibe yi mbokki Canaba may nuyu góor ak jigéen. mag ak ndaw di woo nag waa tund wi yëpp sama moroomi jigéen yëpp nga xam ne dama leen daawoo at mu jot ma dellu si waat tey jii di leen woo di ñaan yàlla yàlla nañ ko teewaat nag ni si déwén ma di leen woo ma leen woo ci bis bi nga xam ne nag mooy bisu maam Banda bi nga xam ne ay ay sëtam ñoom lañ ko àndal di ko def muy sët góor yi ak sët jigéen yi woote mu daa woote nag moom laa dellu si waat di leen ko woo nag di ñaan waa tund wi yëpp nan fi daa ñëwee di nu jàppale. nu ñëw fi nag jàppale nu te yàlla tax xam ne nag maam Banda moom jar na lu ne ndax Banda jar na lu ne ndax bis bii foo génn ñu ngi naa jàngi kër Banda kañ la jàngi kër Banda kañ la kon ñaan may woo wi di sama moroomi jigéen yi muy ma commencé kër xole ba ba kër yaat ma ba njaane ba kër Ibra Faal ba njóobeen di ñaari njóobeen yi ba kër baara ba kër njaga ba kër Aliou Thiaw ba càlle bàyyiwunu kenn ma dugg Canaba ma dem Canaba di woo ba sekk Seck ba Gaar waa Cawaare bàyyiwunu kenn di ndekk lu dellusiwaat nag ci dëkk bi dëkk bi nag nan ko doon defee nan def nag tey jii lu ko raw nu yaatal nit ñi ubbi néeg yi yaatal xol yi yaatal kër yi yaatal jàmmal nit ñi ndax jàmm rek lañ fi am ndax ñi fi ñëw doon ñëw jàmm rek lañ fi jëlee ndax fi mu ne tey foo génn rek jàngi kër Banda rek la ñuy wax jàngi rek te avant première bi di ko gutoon koo génn ñu ngi naa jàngi kër Banda kañ la jàngi kañ la kon nag ñoo ngi ñaan gan ñi ñëw na leen yaatal ubbil leen néeg yi leen xol yi ubbil leen lépp ñaan yàlla nu def ko ci jàmm fekk ko si jàmm ñaan yàlla teewewaat ko nag ni déwén nu fekk ko te tal ko di ñaanal waa dëkk bii nag di leen ñaanal borom dëkk bi ak chef bi ñi nga xam ne ñoo jiite xale yi di ñaanal waa daayira bi nag man waa daayira bi nag dama leen di ñaanal yàlla guddal seen fan yokk seen man-man yokk lépp lu seen xiiwal lépp loo xam ne bëgg nañ ko rek yàlla leen ko yàlla gën a jàppale ci barke Sidina Mohamed ndax xale yu baax lanu nag ndax mën na noo sel beneen yoon waaye lii lañu jàpp nu ànd koog ñoom nag di seen yaay di leen ci jàppale lépp suñu kem kàttan ñoo ngi ñaan yàlla yàlla guddal seen fan sàmm leen sàmm bépp jullit buñ ko yéene ñoo ngi ciy woo bépp jigéen ma di ci dellu di woo axlu maam jaara bi nga xam ne ñoo ko bokk ñun ak ñoom ñu jàppaleen ci bis bi du bis yàlla dafay bis bi andil ko la trois yàlla ñaan yàlla yàlla yeggalen ci la yeggale ko jàmm ak salaam. mbokku jullit yi mbokku taalibe yi kon euh, bis baa ngi noonu euh, muy euh, gàmmu kër Banda Niang ñu war koo def samedi le 3 février 2024 fii ci kër Banda dégg ngeen ni ko ab lay ubbee ci kàddu yi njëkk yi ci turu xalifa bi wala ci ndigalu xalifa bi Euh, Baye Sëriñ Abdoulaye Niang Massayer euh, mu jox ko kàddoom mu yëkkati kàddu goo xam ni kàddu gu am solo la waaye ndigal li jóge ci Baye Cheikh Thiénaba Baye Sëriñ Assane Seck ak njabootu maam Ahmadou Ndak Seck euh, macha allah kon ñu war a def gàmmu gi samedi le 3 février 2024 ñu ngi ciy woo ñëpp bu buñ nee ñu ngi ciy woo ñëpp nag kenn desul olof dañuy daanu dajul suuf kon képp koo xam ni dégg na woote bi rek. Euh, woo nañ la waaye sëriñ Alioune Niang coordonnateur dégg nga fàttali bi ñu fàttali euh, ginnaaw bi nga xam ne Baye Ablaye fàttali nañu jaar jaaru euh, maam Banda Niang ak rakkam mu muy maam Ndaraw Niang waaye ak waajuram muy maam Babacar ànd bi ñu àndoon ak maam Ahmadou Ndak Seck macha allah ànd ak maam Cheikhou Amadou ca liggéey bu rëy ba ginnaaw bi rek fi mu jaar ba ñëw sañc kër bànd waaye ginnaaw bi tamit euh, ndonol xalifa kër bànd niñ ko donnantee ba ci bàyyi sëriñ Ablaye Ñang Masayer yàlla na fi yàgg te wér ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa euh, moom sëriñ Alioune Ñang euh, fàttali nañu ko macha allah ñu ngi koy jaajëful baax ci taxawaay Oustaz Mouhamed Ñang mi nga xam ne moo yëkkati kàddu daayira bi macha allah soññi na waa daayira bi waaye soññi na ñi nga xamee ni tamit ñoom ñoo war a ñëw ci gàmmu gi yeesalaat. toogaay yi euh, xoolaat comportement yi ñu war a am euh, mooy euh, li diine di nangu moom la ñuy nangu fii ci kër Banda waaye li diine di bañ moom la ñuy bañ fii ci kër Banda loolu ak fàttali la mu nekk loo xam ni lu ama am solo la kon wooteeb kër Banda Niang mu ngi noonu ginnaaw loolu Serigne Codé Niang moom tund wi yaakaar naa ni bàyyiwul kenn lim na dëkk yi ñu wër nga xam ni ñoom ak kër Banda samedi lañu ak dimanche benn dox benn dëkk benn bës doxul seen diggante euh, te nekkin bi nekk nekkin boo xam ne nekkin bu rafet la kon ñu ngi leen di woo ci seen gàmm euh, ginnaaw loolu soxna Seynabou Wade euh, moom mi nga xam ni tamit soxna la yëkkati kàddu soxna yi mu bokkal jataay bi ak waa dëkk bi ak njaboot gi woo ñi nga xam ne ñoom la ñoom la ñuy dem leenteel di leen dikk leenteel te Kër Banda nekk gàmm goo xam ne gàmm gu yaatu la ah, bu jotee rek tey bu ñu sax wootu wootewuloon ku ko dégg di nga daw ñëw ndax gàmm gu ñëpp bokk la mu nekk loo xam ne lu am am solo la programme bis bi nag ñu fàttali leen ko bu ñu xëyee li ñuy def mooy jàng alxuraanul karim ah, joxe ay dog ñaanal ah, ña jiitu yàlla jéggal leen seen i bàkkaar leen aljana te ñu dëkk fa ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa waaye ñaanal dëkk bi waaye ñaanal réew mi Euh, bu ñu fa jógee euh, bu ñu demee ba euh, julli jot rek macha allah ñu waajal waxtu wi julli waajal nag génn ca tànt ba def conférence boo xam ni oustaz Sidi Mouhamed lamin moom moo koy def macha allah bu daaneele sëriñ Cheikh du ñëw ñu jël lépp rek jébbal ko moom waxtaanam saf na nit ñi ndax dina la fàttali Euh, dina la dellowaat ci suñu borom moom Serigne Cheikh Amadou yàlla na fi yàgg te wér euh, ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi euh, guddi gi nag programme bi am na Pape Abdoulaye mooy ànd ak groupe am ñu animé guddi gi waaye oustaz Mouhamed Niang comme ni mu ko daan defee rek incha dina ko defee noonu bu ñu demee ba fajar ñu julli nag ñaanalante joxante rendez-vous déwén incha yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wasallam kon euh, bis bi tamit am na ñuñ ko darajaale euh, parrain yi euh, njabootu Baye Ousmane seen bu Ndiané ñoom la ñu def parrain yi ak njobootu Daaru Mbeng macha allah ñooñu la ñu jox rek cëru parrain bi waaye am ay invité d'honneur monsieur Talla Diagne premier magistrat de la commune de Thiénaba muy maire bu Thiénaba Euh, moom bokk na ci invité d'honneur yi ak monsieur Babacar Ndiaye responsable politique nekk biir Thiénaba macha allah ak monsieur Khadim Gueye moom tamit nekk responsable politique nekk ba waaye Serigne njaga Seck euh, nekk mu xaddam Cheikhu ba nekk mu mu Serigne Cheikhu Amadou Seck euh, macha allah dëkk Kër Magueye moom tamit ci invité d'honneur yi la bokk. waaye euh, le haut conseiller des collectivités territoriales monsieur le président Abdou Gningue euh, moom tamit ci invité donor yi la bokk waaye bis bi nag dinañ ci yéene waale tamit fàttaliku ci ñaanal ci Serigne Yaaba Diop macha allah yàlla jéggal ko euh, dugal ko àjjana te mu dëkk fa comme ni ko Baye Cheikh Ahmed Tidiane daan daan waxe ci barke Sidina Mouhamed sallallahu alayhi wa kon loolu mooy programme mu bis bi di ñaan rek yàlla na ci yàlla yóbbook jàmm.